ñi ko njëkk a waxtaanee ci la bokk ci jàkka rawatina ñi ko njëkk waxtaanee ànd nañ ko ci juma ca jumaa yi usine benn tëli ca ndakaaru waxtaanee diglu ba jëriñu ci lu baree bari loo xam ne jëriñ na leen kon moom duñ ko ñuy xamle tomb bi ñuy waxtaanee it du bum bu muy tàmbulee def waaye yàgg na ko def xam na ko mën na ko ñu ngi ci am yaakaar ne bu ko defee ba noppi liñ ci doon yaakaar ci moom dana ko yàlla dana ko ci dimbale yàlla dimbale ko ci ubbi xolam waaye yàlla dimbale ko ci leeral الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي نيو بوكي فيتاو ييب موي ني الاسلام ييتيو بير ييب لولو كوي وقتان وقتانو ملني دو نياك nga tambalé ci ndax li nu xam moy yalla mo waxal bopam ne len rek ka tax mu bind nit ñi mooy ñu jaamu ko ñu jaamu ko kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun lolu rek la wax ne moo tax mu bind nit ak jinne jaamu nag ni señ muntaha muntaxa junje lu bari ci nit ñi dañuy xatal manam da am luñ tudde jaamu yalla ak yo xamne ne wuñ ko ko ta fekk jaamu yalla di lu yaatu ndax bu yàlla ne jaamu ko rek a tax mu bind nit bu ñu xataleeg jaamu kon leneen la nit di def ñu xam nuñ koy tudde jaamu kon ci maanaamu yaatu mi mooy nit ki lépp lu muy def rek mu defe ko na ko yàlla bëgge lépp lu muy def mu defe ko na ko yàlla bëgge loolu da ci dégg ne kon lu yàlla bëggut du ko def lu mu bëggut du ko def kon lu mu bëgg lay def te bu koy defit da koy defe na mu ko bëggee loolu mooy ak jaamu yàlla kon di def li yàlla bëgg te di ko defe ni mu ko bëggee ak lu man di aju rek loolu ak jaamu yàlla la moo tax kon diine ji bàyyiwut dara lépp lu luy am ci dund gi rek diine ji wax na ci dara lam cey wax mooy li suñ mun taxaa junju ba léegi mooy àtte yooyu nu xam benn mu ne loolu kat da ngeen ko wara def wala mune ne kat ngeen def ko mo gën way agut ci war wala mune ne kat ngeen bañ ko def mo gën wala loolu kat sañu len ko def wala loolu kat def ge ak ñak ge def ci yeen la aju bu len sobe ngeen def bu len sobe ngeen baña def juroomi atte yoyu amul menn mbir mom dana ko ñàkk dana ñàkk yépp mbir mu ne rek dana am benn ci àtte yooyu li ñuy tudde politique ci mbir yi la bokk yi nit ñuy def la bokk kon dana jaadu nu xam ban àtte la ko diine jox ci àtte yooyu bu fekkee lu yàlla bëgg la nu mu ko bëggee bu fekkee bëgg ko nu xam ne bëgg ko bañ koo jege bu dee bëgg na ko nag nu jéem a xam nu mu ko bëggee ndax def lim bëgg te defe ko lim ko bëggee mooy doon ak jaamu yàlla ni ko sëñ mu taxaat junje it day tomb bu nu yàgg yitteel di taxoon mu yitteel nu mooy taxawaay bi ci nit ñi am ni ko ni ko junjee léegi te nu jàpp ne du taxawaay ba ca war bi ma ci njëkkee bind ci journal njëkk cee wax ci rajo ñaar fukki at lay toll nii waxtaan wi ma njëkk a def ci jumaa te ànd moom mii fukki at ak juróom-ñeent la 1999 la woon te jumaa jam nekkoon moom toppoon ci sëñ aboo mu nekkoon ilimaan moom mu topp ci moom ca benn tëli ca ndakaaru ñu tegaat ca ayub bis ma defaat ko jumaay sëñ Modou Guèye ndakaaru ba tey ca parcelle loolu fukki la ak juróom-ñeent kon yàgg noo yitteel dal yi taxit rek mooy taxawaay bi ci ñu bari ci nit ñi am te nu jàpp ne du taxawaay booba moo tax ñu jox ko yitte jooju politique nag mooy lan politique mooy lan politik ci làkk yu wuute baat ba ñuy jëfandikoo la muy firi rekk mooy toppatoo ak saytu ak taxawu li ñépp bokk li ñépp bokk saytu ko taxawu ko yittewoo ko loolu la ñuy tuddee politique bu dee ci baatu français bi ñu jëfandikoo daan politique ak fam cosaanoo ak baatu arab bi yépp loolu lay firi mooy saytu mbir mi ñépp bokk di ko taxawu di ko toppatoo anam yiñ koy defe it kon mooy anam yi ñuy yittewoo di ko saytoo di ko taxawoo li ñépp bokk anam yi wuute la am na koo xam ne moom da ko yittewoo fum tollu toll yitteem da cay jëm ak xalaatam di seet luy tax ñu mën a gën a taxawu gën a mën a yit saytu gën a mën a ñoŋal li ñëpp bokk am na koo xam ne noonu la noonu la cay la yitteem di jëm fu mu di ci xalaat di ca wax wala mu cay bind di wone luy dox ak lu doxut loola ak anam la ci yittewoo ci yittewoo li ñëpp bokk ak anam la itam gu nit mën a mën a defe politique nga xam ne tënkuwut ci ab kuréel sax tënkuwut ci am mbooloo sàkkuwut sax ñu dénk ko dara waaye moom mbirum mbir mi ñëpp bokk da ko yitteel fu mu toll di ko xool di ko gëstu di seet luy tax bu gën a baax am na ñooñ seen yittewoo politique ci wàllu googu lay jëm am na ñoo xam ne seen yittewoo politique day àgg ci sax ñoom ñu bëgg ñu dénk leen li ñëpp bokk dañuy bëgg ñu dénk leen ko la ca jaadu mooy dañuy bëgg ñu dénk leen ko ngir ñu saytu ko taxaw taxawu ko ñoŋal ko gën koo rafetal gën koo baaxal kon ñoom weesu du ñam rekk ci di xalaat aka leeral aka wone aka wax waaye dañuy àgg sax ci bëgg ñu leen di dénk ñu leen dénk ngir ñuy man di sottal lañ jàpp ne mooy tax li ñëpp bokk mën a jag loolu anam la itam ci wàllu politik am na anam goo xam ne it mooy koo xam ne moom buñ demee ba ñu war a dénkaane buñ demee ba dénkaane jot ki nga xam ne ñëw na ne man ñi bëgg ñu dénk leen danaa leen xool danaa leen xool setantal leen seet ki ma jàpp ne ñu dénk ko mooy gën man ma sabablu ngir ñu dénk ko ko loolu tam anamuk yittewoo politique la mooy ki nga xam ne kon moom sàkkuwut ñu dénk ko waaye nag bu ñuy dénkee bu ñuy dénkaane dana ñëw moom bokk ci ñiy dénkaane te mooy mu seet ñiy sàkku dénk leen mu seet kum jàpp ne dénk ko moo gën mu sabablu ngir ñu dénk ko ko loolu mooy li ñuy wax vote kii vote ba tey kiñ dem ba dénk ko ba noppi itam kooke itam ba tey la muy def politique la mooy dénk nañ ko ba noppi léegi moom nag moo war a saytu moo war a saytu li ñëpp bokk kooke itam la muy def politique la kon ñeenti anam a ngi noonu yoo xam ne anam gu ci ne danañ ko danañ ko defe politique anam yooyu yëpp nag lan mooy seen atte mooy politique ci boppam kon luy atteem mo xam ci anam yoy gum ci man di doon buñ xamee manam te moy saytu mbirum mbolo mi li ñepp bok saytu ko wo ko taxawu ko ñongal ko loolu moy manam bu nu ande ci maanaam momu danañ xam ne kon lu jaadu la lu jaadu lu jaadu moy lu yon nangul lu yon nangul loolu mooy njëlbeen gi ndax yittewoo li ñëpp bokk saytu li ñëpp bokk jéem a gën a baaxal li ñëpp bokk loolu ku ne xam na ne lu yoon nangu la kon loolu gën a woyof ci àtte bi biñ ci njëkk a wax waaye danoo jàpp ne sax yëmut rekk ci doon lu yoon nangu waaye danoo jàpp ne sax day lu war day lu war am mbooloo bu ñu bokkee dara lañu bokk daa war ñu di ko saytu di ko taxawu di ko jéem a baaxal di ko jéem a rafetal loolu lu war lay doon kon du yem ci jaadu waaye day àgg ci war war googa nag day war mbooloo mi yépp mooy daal war naa am ñu ca taxaw du ñu wax ne diw a ca war a taxaw wala diw sàngam du ñu wax ne kenn ku nekk ca war a taxaw itam waaye dañ naan am na ñu ca war a taxaw am na lu ca war a taxaw ba mu sottee ba sottee ci anam gu gu rafet loolu la ñuy tuddee fardu kifaaya fardu kifaaya lay doon kon te lépp loo xam ne rek nit ñi mënuñ ko ñàkk ci seenug dund fardu kifaaya la ko lislaam di def lépp loo xam ne nit ñi mënuñ ko ñàkk ci seenug dund wala buñ ko ñàkkee seenug dund dana karaj dana karaj mooy dana xajam dana am lu ca manqué dana am lu ca des dana sooxe lu mel noonu rek fardu kifaaya li ko lislaam di def mooy danaan war na farata la am ñu ca taxaw ba mu sotti bu amee ñu ca taxaw ba mu sotti rek ñépp wàcc nañ waaye bu bu sàgganee ba amut ñu ci taxaw ba mu sotti kon farata ji mu ngi ci loosu ñépp mi ngi ci loosu ñépp ku ca jéemut ku ne daal farata ji moom ngi ci loosam ku ca jëm la man nag mën naa am moom mu wàcc bu fekkee sottiwut sam waaye jéem na la man mën naa am moom mu wàcc kon jàpp nañ ne nun li ñuy tudde politik jàpp nañ ne farata la li ñuy tudde nag far fardu kifaaya mooy farata la mu am ñu ja taxaw ci anam gu rafet ki nga xam ne bu ay farataam jàllee danay bari ay naafila ci julli walla ci koor wala ci tudd yàlla jàng alquran tudd ak jàng tudd yàlla yi ci des yépp dana koy baril ginnaaw ay farataam loolu lu baax la lépp lu baax la waaye nag lu ci ne ci boppam la yem lu ci ne njariñam ci boppam la yem kii julli lu ay bari bari ci boppam la yem kii woor noonu ki jàng alquran wala xasida wala lu mën di doon njariñ la ci boppam la yem waaye kuy def loo xam ne njariñ la nag da koy weesu àgg ci àgg ci ñaari nit ku jariñ ñaari nit bokkut ak ku jariñ kenn nit ku jariñ ñett ku jariñ ñeent ku jariñ fukk ku jariñ junni ku jariñ million mën ngaa dem ba jariñ ay million ci wàllu politique ay million yi nit kon ku ne xam na ne ku ku jariñ ay million yi nit la mu def lu baax la ca yu baax ya gën a kawe sax lay bokk ndax njariñ lu bari li boroom xam-xam yi am nañu ci seetlu lu mel noonu wane ne bu faratay jàllee yu baax yi ñuy def la ca gën a baax mooy la njariñam gën a yaatu la njariñam gën a yaatu kii def lu njariñam yam ci boppam rek la muy def baax na waaye kuy def lu njariñam weesu boppam jàll ci ñeneen nag la muy def moo gën a baax te kii politique mën naa def lool njariñam ci ay millions yi nit lay jàll kon la muy def lu baakha baax lay doon kon atta bi duñ wax rek ne lu jaadu la way da nan lu war la lu mën doon lu baax lol la itam lu mën doon lu baax lol la lu baax ak jaamu yalla ak jaamu yalla gu kawé man nako doon tax jaamu yalla niñ ko waxé won moy di def la yalla bëgg ta diko defé nam ko bëggé bu féké defé nañ ko niñ ko bëggé rek jaamu yalla gu kawé lay doon lan aksi nak ci nam ko bëggé ci anam yoy ñu waxon yépp kon euh, politik jàpp nanu ne lu war la ci maanaam nag min ko jox jàpp na ne lu war la waaye nag dafa am tënk ab tënk ab tënk rek moo ko tënk moo tënk ci anam yi ñu waxoon yépp anam bu ci nit di politique dafa am lu ko war a tënk loolaa koy tënk tax mu mën a doon lu baax bu ko loolu tënkut du baax du ne jëmm jaa jëmm jëf jaa baaxut waaye defin waa baaxut lii tax nag mu baax mooy ki ci sóobu sóobu ci ngir jariñ jariñ nit ñi waaye njariñul boppam bañ ko cee dugal njariñul boppam rek bañ ko cee dugal waaye njariñul nit ñi dugal ko ci loola mooy tax mu baax mooy tënk bi nga xam ne ku ci yëngu ci anam yi ñu wax yépp anam gum ci mën di yëngoo rek la ko ca war sóob mu war a doon njariñul nit ñi ba doon njariñul boppam rek te mu xam ne njariñul mbooloo mi ci la njariñam nekk ndax ci mbooloo mi la bokk ku taxawu mbooloo mi ci lu leen di jariñ taxawu leen ci lu leen di jañal lor lu leen di fegal lor ma ngi koy defal boppam ndax ci biir mbooloo mi la bokk waaye li jaaduwut mooy di ci soobu nit di ci sóobu ngir njariñul boppam rek loolu kon moo tënk yëngu ci politique ci anam gu mën di doon ci ñeenti anam yi ñu waxoon léegi nag nu xool benn benn ci anam yooyu anam gu ci ne ku cay yëngoo ci politique nan la ca war a yëngoo bokk na ci anam yi ñu waxoon koo xam ne moom dafa bëgg ñu dénk ko dafa bëgg ñu dénk kooku moom lañuy tuddee ab kàndidaa bu dénkaane jotee moo xam ab dëkk lañ bëgg a dénkaane wala réew mi lañ bëgg a dénkaane walla baatu nit ñi lañ bëgg a dénkaane mooy li ñu tudde parlement ñu fay nekk walla mbooleem daal yi nga xam ne dañ ko dénkaane ci réew mi rek lu ci dénkaane ko jot rek que dikk ne bëgg nañu dénk ko kooka lañ naan candidat la kooka am na lu aju ci moom lu war a xam loola it ñëw ne dama bëgg ñu dénk ma loolu du woon cosaan ci lislaam du ci woon cosaan waaye nag bu munta ñàkk danañ ko nangu bu munta ñàkk li taxoon nekku ci woon cosaan mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réew mi réeyi wutoon ni mu réeye léegi jullit ñi tasaaroo wu ñoon ni ñu tasaaroo ñi ëpp ëpp ña ko woon Madina nekk ak moom mu xam leen xam ko ne lum man ak lum mënut ba tax na bu bëggee dénkaane moom dana xam dana xam ku muy dénk jamono yooyu bëggutoon kenn di sàkkul boppam naan nañ ma dénk nangam ku ko masaan def du ko ko dénk ndax moom mi dénkaane xam na ñi fi nekk xam na seeni man-man jamono yii nag ni àddina si ubbi ko ak ni réew yi tasaaroog ni nit ñi bare loolu kenn mënu ko ki jiite ab dëkk mënut a wax ne xam na waa dëkk bépp xam na ku ci ne la mën ak la mënut sàkkantuma ki jiite am réew sàkkantuma bu ko defee danañ nangu buñ demee ba dénkaane jot ki ki ki ki ki bëgg jariñ mbooloo mi te woolu boppam jàpp na ne man na ko dana sañ a ñëw ne man kat bëgg naa ñu dénk ma nàngam bëgg naa ñu dénk ma nàngam kon lu mu sañ la nit sañ naa ñëw ko ne nañ ma dénk da cay cosaan nag nanguwuñ ko ndax li ma waxoon que daan dénkaane xamoon na ñëpp xam na ko ne la man ak la manut waaye bu ñu demee ba àddina tëdd ne leen danañ saña nit dana sañ ñëw ne bëgg naa ñu dénk ma ki bëgg ñu dénk ko li war ci moom mooy war naa doon ku xam ku amuk xam amuk xam ca lam bëgg ñu dénk ko ca lam bëgg ñu dénk ko war na caa am ak xam war na ca am ak xam war naa doon itam ku wóor ndax ndénkaan moom lu yoolof naan dénkaane kala doy ku doy mooy ku wóor ndénkaan lu mu mën di doon moom kañ koy dénk daa war a wóor ndax lañ koy denk bu worut man na ca yak kon da wara wor lu ñepp bokku la wala bokk lu mbooloo la kon buñ ko koy denk war naa doon ku wor kon war amuk xam te lañ koy denk war naa doon ku wor itam bu fekke lu laaj yaram la warna war am yaram ga lola laaj bu fekkee laaj na kàttanu yaram war kàttanu yaram ga loola laaj gis nañ Seydina Yuusuf lii nu wax defoon na ko ñëw ne dénk leen ma ab yonent la ab yonent lu def dañuy xam ne luñ sañ a def la bu fekkee gisuñ lu ko tebbiwaat lu ko lu ko folli ci li mujj a wàcc kon Seydina Yuusuf ñëw na ne dénk leen ma li tax mooy xam na ne man na ko te dana jariñ mbooloo mi te mbooloo mi xamuñ ko moom xamuñ ne moom man na loolu moo tax mu ñëwal boppam ne nañ ma dénk nañ ma dénk bi mu ne nañ ma dénk it dafa wax li tax ñu war koo dénk li tax mu sañ a wax ne nañ ma dénk dafa wax ne mbir mii am naa ci xam te itam wóor naa ñaar yooyu lañu waxoon ne bokk na ci melo yi war a nekk ci kii bëgguñu dénk ko qaala ja'alni ala xazaini al ard inni xafidun alim dafa laaj ñu dénk ko lu jëm ci wàllu économie bu réew ma wala wàllu mbay mi mu ne nag am naa ci xam te wóor naa ñoo xam ne kon ak xam dafa jaadu ci kuy bëgg dénk ko mu am ko ca lañ koy dénkee te la bëgg ñu dénk ko ko waaye daa war a wóor itam lu ñu ko mën di dénk rek daa war a doon ku wóor euh, taalut alquran ba tey buy nettali taalut mi nga xam ne euh, yonent ba ba nekkoon ak ñoom da leen wax na yàlla kat nee na na taalut nekk seen njiit di jiite xeex yi ngeen di xeex ak seeni noon nit ñi diingat ko diingat ko ne moom amut alal daal amut alal mu yónnente bi ne leen yónnente booba daawut lay doon foog na ne leen loolu ajuwut ci alal ajuwut ci alal waaye ak xam la aju ak kàttan te yaar yooyu yàlla jox nag ko yaar yooyu yàlla jox na ko taalut kon nak man na jité waye alal ak am-am taxut a mën jité qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism ñaar yooyu la wax lola laaj na katanu yaram ndax ab xex la kuy jité xex war na am katanu katanu yaram xeexit laaj na ak xam kon yonente booba ne len talut kat man na njit ndax yalla may na ak xam may nako itam katan alal ji di wax nak bokku ci waral ñu jité kon ki bëgg jité bu ñëwé di sakku warna am melo yoyu wenen melo warna ci and moy waru ci xar tanku tubayam waru ci xar tànk tubayam wërta doon koo xam daal dana moom daal munta ñàkk ñu dénk <laughs> loolu tam bu ku ko def sax waruñu laa wóolu ndénkaan rek wërta àgg nag ci nit kii di ca xar tànk tubayam nañ ma dénk nañ ma dënk rek ku ca xar tànk tubayam waruñ ko wóolooti loolu lay firee la yonente bi daan wax ne ku koy sàkku duñ ko ko jox ndax ki koy sàkku bu fekkee du ne daa munta ñàkk rek boobaa bu dee léegi sàkk ko mën nañ koo def waaye nag xar ci tànk tubéy nag jëru ko sàkk ko mën na si mënees na koo def fi mu ne nii waaye nag di ci xar tànk tubéy jëru ko abu muusa al ashari yi ci saxaaba yi la daa nettali ne mas naa ànd ak ñaari nit ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñooña ci aw xeetam lañ bokk bañ demee kenn ki ku ci ne ci ñoom ñaar ñaar ñoom àndal ku ci ne sàkku ci yonente bi mu dénk ko dara mu fal ko daal kii na ko dama bëggoon nga fal ma préfet dëkk sàngam kii dama bëggoon nga fal ma gouverneur dëkk sàngam yonente bi ne leen lii kat ku koy sàkku duñ ko ko jox ku ci xéer itam xar ci tànku tubéyam itam duñ ko ko jox ku ci xéer xéer ci mooy xar ci tànku tubéy ku ko def itam duñ ko ko jox ndax day nuru dañ kan rek jërut ku bëgg ñu dénk ko rek jërut mu ci ag fenn fi bu àggee fenn fi du jara wóolu melo yi wara nek ci mom moy nak mu am ak dëgër mu dëgër du dëgërug yaram waye dëgërug mana mu don ku dëgër njit da war don ku dëgër ndax njiit daa war di àtte àtte mooy léeg-léeg nit nekk ci lu jaaduwut mu xamal kon daa nekk ci lu jaaduwut nit di def lu jaaduwut mu jàpp ci loxoom loolu ak dëgër a koy maye ku dëgërut du ko man ku dëgërut du man loolu du mën a fekk kuy def lu jaaduwut mu téye ci loxoom wala ku ñu war a teg ay daan mu teg ko daan yañ ko war a teg loolu ak dëgër moo koy maye te kilifa da ko war a def moo tax kilifa daa war a ki bëgg kon ñu dénk ko war naa amul dëgër dëgër ga mooy tax ba lu jaaduwut mu mën koo tere lu jaaduwut mu mën koo tere lu jaadu it mu mën koo def donte am na ñoo xam du leen neex waaye xam na ne moo jaadu xam na ne moo baax xam na ne mooy njariñ bu amee ñum neexut itam dëgëram mooy tax mën koo def bu amee lu ñenn ñi def te jaaduwut itam dëgëram mooy tax man leen koo tere kon dëgër googu day lu munta ñàkk ci njiit ba tax na ko bëgg ñu dénk ko war naa am melo loolu tam yonte ben jox misaal euh, Abu Dhar al-Ghifari ci la bokk bu dee ci wàlluk mbaax ci ñi gën a baax la bokk ku dëdd at ku dëddu àddina la woon ku ñeme dëgg la woon ku daan bàkke yooyu la ci wax dëgg nii waaye am na ñàkk dëgër gu ne ci moom goo xam ne yonente bi xam na ko ci moom bis Abu dara ñëw ci moom di ko ci moom bëggoon daal mu am lu mu ko sant lu ko sant bëggoon am lum ko dénk mu ne ko ah yow kat dafa am néew doole gu ne ci yow koo xam ne xam naa ko te lii ndénkaan la ndénkaan la te bu yowmal xiyaamee kuñ dénkoon ndénkaanam lii gàcce la koy jural ak réccu bu ca doxewut nam ca war a doxe bu ca doxewut nam ca war a doxe yow nag am na ak néew doole gu ne ci yow ak ñàkk dëgër gu ne ci yow bu ma la ko dénkoon da nga ci doxe noo ci war a dox ngir ñàkk dëgër googu te yéenewuma la loolu moo tax du ma la ko dénk am na ci nen beneen nett sax dana ko yow kat li ma la bëggal laa la bëggal li ma bëggal sama bopp yow Abu Zar li ma bëggal sama bopp laa la bëggal moo tax li ngay sàkku du ma la ko dénk ndax ak ñàkk dëgër mi ngi ci yow te lii ndénkaan la lool ku ci doxewut nam ca war a doxe bu ëllëgee gàcca ak rëcc la koy jural bu ëllëgee bu àllaaxira bu yomal xiyaama kon ki nga xam ne bëgg nañu koy dénk melo yooyu ñoo war na ci moom juróom melo yooyu lu gàtt gàtt war naa ne ci moom war naa amuk xam te mbir muy bëgg ñu dénk ko ko war naa doon ku wóor bu dellu laaj kàttanu yaram la war naa am kàttanu yaram googee warta doon ku ci xër lool xar ci tànk tubayam war naa doon tam ku am ak dëgër ak dëgër ba bu dëgër jotee mu mën a dëgër loolu kon mooy ki nga xam ne day sàkku ñu dénk ko li war a ci moom bu loolu nekkee ci moom ba muy sàkku ñu dénk ko itam lan moo ko war mooy kii sàkku ñu dénk ko dana ñëw ne dama bëgg ngeen dénk ma ndax nangam ak nangam ak nangam ndax nangam ak nangam ak nangam yooyu la ñuy tuddee campagne campagne campagne mooy ki bëgg ñu dénk ko li mu wax ne moo tax mu jàpp ne war nañ koo dénk wax lam man lam nar lam fas yéene yu mel noonu loolu la campagne di firi mu loolu firi mooy da ngaa bëgg ñu dénk la nga ñëw ci ñi dénkaane ne leen dama bëgg ngeen dénk ma li tax mu bëgg ngeen dénk ma nag mooy nangam ak nangam ak nangam lii laa fas yéene def. lii laa xam lii laa man lii laa fa séene def yu mel noonu kon campagne la ca war a am lan la mooy war naa wone li mu bëgg a def bëgg naa ngeen dékk ma kët ndaxte nangam ak nangam ak nangam laa bëgg a def te jàpp naa ne lii ma bëgg a def moom la sunu sunu mbooloo mi soxla sunu dëkk bi wala sunu réew mi wala sunu gox bi moo xam lañuy dénkaane nam yaatoo lim ne moom la bëgg a def itam lu ci bari day am ñeneen tam ñu bëgg ñu dénk leen du doon moom rek nekk na fi waaye ñeneen a ngi fi ñeneen ña ña ngay wax luñ bëgg a def ñoom it kon dana sañ ne man lii laa bëgg a def te xam ngeen ne lii ma bëgg a def moo gën li diw ne moom la bëgg a def kon mooy lim na moom la bëgg a def dana waale lim li li li war a tax ñu bàyyi keneen di ko tànn dana wone kon liko liko li ak ñeneen ñi sàkku ne mom ñoom it lañ bëgg a def loolu sañ na ki, waaye wërta àgg nag ci di ŋàññi ak khas, ak a ak wax wax ñaaw ña xëccool ña muy xëccool mooy ñeneen ñi bëgg itam ñu dénk leen sañ naa wax moom li ne ci moom ak lim fas yéenee def sañ na àgg sax ci wane la la baaxul la baaxul ca keneen ka la muy wax ne bëgg na koo def waaye foofa la yem warta àgg nag ci di ko di ko xas wala di ko wax wax ju ñaaw wala di ko tuumaal wala di yàqu deram wala di wax loo xam ne jubluwu ci lenn lu dul rek nit ñi wan ko ginnaaw loolu campagne waru ca àgg ku dugg foofa rek génn na ci ni ko yàlla bëggee génn na ci yàlla bëggee ku dugg ci di wax wax ju ñaaw di ko jëme ca kii sàkku ne moom di wax loo xam ne daal da caa jublu rek nit ñi won ko ginnaaw waaye xam na ne demewut noona boobaa génn na ci ne ko yàlla bëgg bu yamee fii nag wax moom li mu bëgg a def wax it keneen kay sàkku lam ne da koy def ni ko moom lim bëgg gëne ci xalaatam loola sañ na koo def te kenn du ko kenn du wax ne génn na ko yàlla bëgge bu ne bëgg naa ngeen dénk ma keneen ne bëgg na ñu dënk ko keneen wax ko ñii dénkaane ñooy ñëw ñoom ñooy ñëw nag wax ne noonu kii leen dénk mooy ñu ñëw voté bu ñu voté nag bi ñuy sàkku ku sañoon naa sàkku waaye ñii dénkaane bi ñu xasee wax ne kii lañ dénk nag ñëpp dañ ca war a ànd doon nga sàkku waaye nag nit ñi kii lañ dénk da koy jàppe noonu rek am naa sañ-sañu sàkku sàkku woon naa def naa li ma war a def waaye nit ñi nag kii lañ dénk kon dama cay ànd waaye li ñuy xunn xunn waru ca mooy li nga bëggoon amul rek nga nga nga nga ak bëgg a jaxase fi xun lank lank ko xam tegoo fenn japp nga yow dal kenn wër la kenn wër la teggi dal buñ la teggee rek jaadu wut lutax kenn wër la teggi buñ la teggi wut teggi nañ kenen bi keneen ka kenen ka loo ko gën a sañe mun ñoo ñàkk teggi kenn mun ñoo tàgg ñàkk nit ñi nak ñom ñoy dénkaane buñ xasse dénk kenn kooku lañ dénk kenen kuñ dénkut da war nangu da war nangu ndax du yëfam yëfi nit ñi la ñoo koy dénk ku leen neex dénk nañ ko ku leen neex la mu war def rek mooy ànd ci kon kii sàkku ñu dénk ko bu ñu toll ci sàkku sañ naa sàkku waaye bu ñu demee nag ba mu sotti bañ xam ne nit ñi diw sàngam lañ dénk da war a ànd ak nu mën di jàppee diw mooma moom nit ñi ñoom ñooy dénkaane moom lañ dénk kon warta def lenn lu dul ànd ci ba dénkaane jotaat bu bëggee sàkkuwaat mu sàkkuwaat waaye munta diingat li nit ñi def ndax nit ñee moom ñooy dénkaane kuy dénk kala ka nga wóolu wala kala neex sax rek foo la neex ngay dénk ku la neex ngay dénk bu la dee yàqal ëllëg lañ koy xam ëllëg ko dénkee ba noppi la xam daan la yàqalam déet bu la yàqalee itam yaa dënk dénk boo léegi xëy doo ko dénkaat waaw yaa ko dénk moom kenn mënu ci lenn kon kii sàkku jamono yi muy sàkkoo sañ naa sàkku ci anam yam ko war a defe waaye bu nit ñi demee nag ba tànn kañ dénk da caa war a ànd loolu moo aju ci ki nga xam ne day sàkku mooy candidat ki nga xam ne nag mooy dénkaane mooy électeur ki nga xam ne mooy vote bu vote jotee kooku mooy vote mooy électeur moom it am na taxawaay bu ko war bopp bu ko taxawee danañ ne la muy def yàlla bëgg na ko te defe na ko nam ko bëggee la muy def yàlla bëgg na ko te defe na ko nam ko bëggee élection tànn lay firi tànn mooy nit ñi am na luñ moom mbooloo mi am na loo xam ne ñoo ko moomal seen bopp waaye nag mënuñoo àndandoo di ko sottal mënuñoo àndandoo di ko sottal ñee nañ tànn kenn wala ñen denk leen ñuy taxaw sotal gog lolou lañuy tudde election bu dé réew mi yépp la ñu kenn moy bu ñuy tànn njiitu réew mi bu dé lu melni parlement bi la assemblée moy ñuy tànn ñuy téwal wa réew mi ci barab boba di def liggéey ya nga xamné wa réew mi ko waron def way mënuñ fa dajé ñom ñëpp diko def bu dé ci dëkk bi la nonu bu dé ci département bi la nonu bu dé gox bu ñuy bu ne rek mooy waa gox ba dafa am lu moomal seen bopp te mënuñoo àndandoo ñoom ñëpp nag di ko sottal ñu tànn kenn wala ñenn dénku ko muy sottal loola loolu rek mooy élection kon mooy dénkaane la bokk ci élection nag bokku ci bokku ci lan mooy àtteem bokk ci élection dañu jàpp ne moom it farata la farata daal lu ñu sàkku la lu ñu sàkku ndax nin ko waxe mbooloo mi am na lu ñu moomal seen bopp te mënuñ koo bokk di ko sottandaloo di ko sottal di ko sottalandoo kon liñ man rek mooy tànn ñenn buñ ne bay tànn ñenn wala kenn nag di ko dégg dénk li ñëpp bokk élection mooy lan mooy dañ ne diw mii kat bëgg nañu dénk ko diw mii bëgg nañu dénk ko diw mii bëgg nañu ñu dénk yéen ñi ko moom nag kaay leen àtte leen wala kaay leen seere kaay leen seere seere mooy lan mooy diwa ngi nii diwa ngi nii diwa ngi nii ku nekk bëgg nañu dénk ko ku nekk am na lu ngeen xam ci moom xëy na wala am na ci ñoom ñooñ am na lu ngeen xam ci ñoom kaay leen seere la ngeen xam ci ñoom kaay leen seere ne ndax kii dénk ko moo gën ngeen seere ne man daal li ma seere mooy kii dénk ko moo gën kii de man li ma seere mooy kii dénk ko moo gën kii de man li may seere mooy kii dénk ko mooy gën kon élection mën nañ ko jàppe seere seere ndax ñii bëgguñu dénk leen yow da indi sa seere ne man kii waaye seere na dénk ko moo gën te buñ ko mënee nuróol ak seere nag seere moom buñ ko aajowoo day doon farat seere buñ ko aajowoo day doon farat ku fekkee am mbir ñu dem ba bëgg ca xam-xam buñ ko wooyee ne ko kaay wax lañ ci xam sañu ta gàntu sañu ta gàntu bu gàntu woon sax sañ nañ koo teg ay daan daan ko yoon sañ na koo daan yoon yëpp laay wax nag yoon lislaam ci laay wax yoon yi niñ tëral seen bopp itam noonu lay demee mooy seere saa bu demee bañ sàkku ko ci nit daa war a dem seere ji kon mooy élection bu dee seere kon saa bu ñu demee na ñëw leen seere nit sañ te gàntu nit sañu te bu gàntoo day mën na ko gantu seere te seere yàlla dafa wax ne nëbb seere da ko tere ne nëbb seere bàkkaar la wala taktumu shahaada wa man yaktumha fa innahu aasimun qalbu bu leen nëbbu seere ndax ku nëbbu seere dafa def bàkkaar kon buñ ko mënee nuróoleeg seere dañ naan kon lu war lay doon bu jotee lu war lay doon ndax ku ko defut day mel ne dañ koo seere loo mu bañ a seere ba tey day dugg itam ci yittewoo mbiru mbooloo mi rek ndax ci mbooloo mi la bokk ñuy dénkaane luñ bokk ñoom ñëpp ku ne moom yoonam néew ci kon day mel ne yoonam néew ci mbiru mbooloo mi lay wax mbir mbooloo mi bokk moom yoonam néew ci seen mbir yittewoowu ko loolu tam foog naa nit war na koo weesale boppam nekk ci biirum mbooloo bokk ak ñoom la mbokk ak ñoom ñu war a dénkaane loola moom mu ne yoonam nekku ci bàyyiwu ko xel faalewu ko yëgu ko sax loolu foogu ma ne euh, nit ku am responsabilité dana yemale boppam foofu kon yitte woo mbirum mbooloo mi élection da koy wane vote mooy dem vote ji te wane na yow yitte woo nga mbirum mbooloo mi nga bokk mu man mën koo nuróole itam ak seere man koo nuróole itam ak liñ daan wax jaayante jaayante jaayante te njëlbeen ga mooy jullit ñi dañuy am lenn njiit lenn njiit njiit loolu buñ ko tànnee nit ñi day ñëw jaayante moom jaayante moom mooy wan ko rek ne ànd nañ ci nga jiite ñu loolay firi ànd nañ ci nga jiitu nga jiite ñu bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa jullit ñi dañuy dem Seydina Abubakar wax ko loola jaayante ak moom mooy ne ko ànd nañ ci nga jiitenu ba mu fi ñu koy ñu dem Seydina amar di ko topp noona ba bi yëf yi leneen dugg ci ba doole dugg ci ñenn ñëw rek nekkal fi seen bopp waaye lay cosaan mooy nit ñi ñëwal seen bopp ne ànd nañ ci nga jiitanu loolu mooy jaayante jaayante googu nag yonente bi dafa waxoon ne nit sañu ko bañ a def nit sañu ko bañ a def bu njiit amee ñépp dañ ko war a nangul ak njiitam ñépp dañ ko war a nangul mu ne ku ku ca bëgg a génne boppam daanaka bu faatoo ci ceddo la faatu ceddo nag maanaam ñu ci jublu mooy ña lu dul lislaam la jiitu lislaam la ñu tudde ak ceddoo la jiitu lislaam rek nee na ku ko def bu ëllëgee bu yowmal xiyaame buy dajeek yàlla du amu lay du amu lay ku ñàkk jaayante kilifa gi fi nekk doon njiit mu ñàkk ànd ak moom ñàkk ko déggal ku def loola bu yowmal xiyaame du amu lay fa kanam yàlla te bu ca faatoo te jaayante wut day mel ne ku faatu ci ceddo te élection muy voté mën nañ ko nuróole ak jaayante ba tey ndax ki nga naan moom laa seere ne mu jiite moo gën day mel da nga jaayante ak moom te ni ñu ko waxee buñ demee ba mu sotti ki nga waxoon sax bu fekkee nit ñi keneen lañ tànn keneen kañ tànn da nga ànd mooy dangay ngay jaayante ak moom ba tey keneen kiñ tànn da nga ànd mooy tax jaayante gi mat ndax naka jekk euh, jaayante ñépp du ñëwandoo benn yoon ñenn ñi ñëw ñu ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ñëpp ñëw kon bu ñu demee ba léegi kii day sàkku kii sàkku kii sàkku nit ñi ñoom tànnal seen bopp bu ñu nee nit ñi mooy ñu gën a bari ci nit ñi tànnal seen bopp kenn ñi ci des ñëpp itam dañoo war a ñëw fekk si leen ca kañ tànn nangul ko njiitam mooy jaayanteeg moom. loolu la yonte bi wax ne ku ko defut bu faatoo ca loola mel na ne ku faatu ci caddo kon loolu mooy àtteeb àtteeb vote ci leen ko gise jàpp nan ne vote day wone ne nit ki dafa yittewoo mbirum mbooloo mi mu bokk vote itam dañ koo mën a jàppe ne seere vote itam dañ koo mën a jàppe ne jaayante te seere ak jaayante lu ci nekk day lu war day lu war seere kuñ ko sàkku ci moom bu ko nanguwut a def yàlla nee na dafa def bakkaar jaayante yonte bi nee na ku ko defut moom itam bu ëllëgee du amoo ay fa kanam yàlla te bu ca faatoo mel nañ ku faatoo ci caddu lan moo war nag kii wote lan moo ko war buñ xamee ne jëmmi wote ci boppam kon lu jaadu la wala lu war la sax waaye kii woote nag kon nan la koy defee ba nam koy defee dëppook na ko yàlla bëgge la ci jëkk mooy mu dëggu dëggu ndax day seere seere dañ cey bëgg nit ki dëggu dëggu ci seere mooy seere lay dëgg seere lay dëgg mu dëggu ci seere si tey itam niñ ko waxe woon ci njëlbeen gi mu xool ci njariñul mbooloo mi bañ caa xool njariñul boppam mooy ñi ñëw ku nekk ne bëgg naa ñu dénk ma buy seere day xool diw sàngam mii digganteem ak yàlla mu ne ah diw mii day li ma xam ci jikkoom xam naa ne wóor na diw mii nag xam naa ne wóorut ki wóorut moom mu daat koy génn ku wóorut kenn ko dénk diw mii xam naa ne wóor na xamna ne li mu bëgg ñu dénk ko am ci ak xam te tam li mu wax ne mom la fas yéenee def lu bax la lu amal ndariñ mbolo mi la mu ne kon man diiw mi lay seereel séra moy nga nga nga nga wax lu deppok li am li nga xam lolu nga xam kon bo woteelee diiw momu dëggu nga ci sa séré way bo xamé ci diiw momu lolu ba nopi dem woteel menen diiw mo xamne ne xamoo ca loola safaan ba nga ca xam kon dëgguwoo ci sa seere mooy kii ngay watal kat yaa ngi koy watal waaye xam nga ne nag doonut ku wóor koy watal waaye xam nga ne buñ ko woteelee li mu fi nar a def du doon lu baax yaa ngi koy watal waaye xam nga ne lii ñu koy dénk amu ci xam ba noppi nga woteel ko loolu mooy seere lu dul dëgg ki def loolu mooy ku seere lu dul dëgg ki dëggu ci seereem mooy ki nga xam ne dafa woteel kim xam ne moo gën moo gën ndax am nag xam ci lim bëgg ñu dénk ko ko am nag wóor te itam lim bëgg a def ne moom la bëgg a def itam lu amal njariñ mbooloo mi la dëggu ci seere nag yàlla da ko digle dafa tere ñàkk a dëggu ci seere ñàkk dëggu ci seere seere su dul dëgg da ko réel lool deggu ci séré da koo digle wa aqimu shahadata lillah moy da ngeen di séré te diko djubal ngir yalla rek ngir yalla rek ma ngeen deggu ci wax fenen ne dee leen te donte sax séré si day dal ci sa kaw wala mu dal ci kaw say say wayjur wala say bokk donte day dal sa kaw sax de dal sa kaw sax mooy day metti ci yow li ngay seere sax bu saxee day metti ci yow mbaa metti ci say wéjur ci say bokk bu mu tee nga wax la am nga seere la am kon lii yàlla digle ci seere moo ñu dëggu ci ya ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhadaa lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كون بوي سيري بول خول ne كي بوك nag موم لي ولا كي بروم علال لا ولا كي كو نياك لا يوي yëpp bu ko خول xool xool yàlla moo gën a yey te yàlla lam ca digle mooy di seere dëgg xool loola rek nga war a def mooy nga seere dëgg rek seere lu dul dëgg moom yonente bi sallallahu alayhi bi muy wax bàkkaar yi gën a màgg da ko boole ca ya ca jiitu ya jiitu bi mu waxee bokkaale teg ca dënge ñaari way jur loolu la ca teg seere lu dul dëgg te saxaaba yi bi ñu koy nettali dañoo wax ne sax ba muy wax loola daa sóonu woon dafa sóonu woon dafa sóonu woon waaw bi mu agsee ci seere lu dëgg dafa jóg di ko wax di ko baamu di ko baamu bañ ne ngéej bañ ne ngéej noppi mooy mel ne ko ànd ak daal dafa ne ko ànd ak muy wax loolu daa sóonu di wax ne bàkkaar yi gën a mag day ya ci gën a mag ñooy bokkaale bokal ak yalla dara wala len wala kenn ak dënge ñaar wayjur dal di jóg nag ne ak seere lu dul di baam di baamu di baamu ba ñu ne ngeej mu nopi lool day wone kon numu mu to voté loolu mëna ci am seere lu dëgg mën ci am nit ta xamne gënut mu nekk fi gënut ñi ci des nekkon fi ñeneen ñi nga xamne ne ngi sakku loolu seere lu dul dëgg la kon li njëkk ci kiy vote mooy mu dëggu ci votam dëggu ci votam mooy dëggu ci seereem ñaareel ba mooy mu bañ a vote ngir parparloo parparloo parparloo walla njariñul boppam njariñul boppam njariñul boppam jàpp na ne daal diw mi bu jotee ci lii njariñul njariñam moom lay doon waaye xoolul njariñul mbooloo mi wala mu cay xool ak parparloo ñoo bokk nàngam diw mii kat moom lay watal ndax noo bokk nàngam noo bokk nàngam noo bokk parti noo bokk parti kon moom lay watal loolu parparloo la kon mooy xoolatoo nattuwaay yi ñu waxoon te mooy teg ko fi doon njariñul mbooloo mi noo bokk aw xeet kon moom lay wateel noo bokk ab tariixa kon moom lay wateel noo bokk fun dëkk ab dëkk walla ab région wala ab nàngam kon moom laay wateel yooyu yépp amu ci lenn lu ñu war a sukkandiku ba wateel nit loolu par par loola par par loo warta feeñ ci wot bu ci feeñee dëggu gi ñu waxoon seere sa day day des dëgg ga day des ndax kon xoolatoo nattuwaay yañ ca waroon a xool waaye da ngaa xool par parloo gi rek te boobu mën naa jur seere lu dul dëgg kon dëggu ci seere si ak it bañ a sukkandiku ci njariñ loo ci jële yow wala bañ koo def ngir par parloo manis naa wax ne yooyu mooy yi nga xam ne moo war kii kii tànn bu demee itam ba war a ba war a xàjjale kii nee na bëgg nañu dénk kii bëgg ko kii bëgg ko kon moo leen di xàjjale buy xàjjale te seere la mooy lim xam ci kii xam ko ci kii xam ko ci kii xam na ne kii moom baax na buñ ko dénkoon moom day baax kii buñ ko dénkoon day bon kon ki nga xam ne buñ ko dénkee day baax kooku la la war a kooku la war a dénk kooku la war a dénk mooy kooku la war a voteel bu fekkee ñaar ñëpp baax wala ñett ñëpp baax mën na caa am ku gën a baax dëgg la ñett ñëpp baax nañ waaye nag kii moom moo gën a baax bu ñu ko ko dénkoon kon ka gën a baax lay dénk lu fi bàyyi ki gën a baax di dénk ki baax yem ci bu dee ku baax ak ku baaxut du dénk ki baaxut di bàyyi ki baax bu dee kenn baaxut sax ndax nit ñi dañu wax loolu léeg-léeg gaa yëpp yem gaa yëpp mooy kenn baaxut bu kenn baaxut sax seenu ñàkk baax du yam du yam danañ danañ wuute ak ñàkk baax kii dana bon kii bona bon kii bona a bon mooy kon du ñam kon du ñàkk rekk foo mën a sukkandiku ba ba tànn ci ba tànn ki bon ak ki bona bon ñoom rek a fi nekk mënu leen a génn kon jappalel ki bon jappalel ki bon mo tane jappale ki bon a bon kon munta ñak nga am lo sukkandiku way rek do wax ni ñëpp a rek ñëpp mënuñoo yam ñepp mënu ñoo bon sax ci sa xalaat ci sa xalaat sax lay wax nak sa xalaat la rek boo ne bon sa xalaat la way bu ñepp bon ci sa xalaat itam du ñam ak bon kon ka ca gëna neewuk bon mom nga jappale ndax boo ko jàppalewut am ñu jàppale ke gën tar ak mbon doon nga ci dara day mel ne seetaan nga ba ki gën a tar ak mbon nekk fi te mën naa am boo jàppale woon ki gën a woyof ak mbon kooka ñëw te mooy tane mooy mooy loram loram mooy gën a néew loru ki bon a bon léegi nag kiñ tànn ba noppi kiñ tànn ba noppi moom ba ne ko yow lañ dénk lan moo ko war noonu bu ko doxee moom itam nu mën a jàpp ne lam def lu yàlla bëgg la te defe na ko ne ko yàlla bëgg la ca jiitu mooy mu maandu maandu kuñ dénk mooy ku jiite rek ku jiite daa war a maandu ca ñamu jiite maandu nag bokkut ak yamale bokkuñ maandu ak yamale bokkuñ waxuñ ne da wara yamale wa da wara a maandu maandu kenn ku ne jot akam kenn ku ne jot akam jot lamu yel lol akam ku am ak ku ne jot akam lol moy maandu baña xagn kenn akam ku ne jot akam ñu baña xagn kenn akam lol moy maandu lolou war na képp ku jiite ak lam jiite moo xam lu yaatu la moo xam lu yaatuwut la waaye maandu war na ko leneen li ko war itam mooy lu muy def mu xool ca njariñul mbooloo mi mu jiite mu cay xool njariñul mbooloo mépp bañ caa xool njariñu ab kuréel rek ab kuréel waaye mbooloom yépp lay xool seen njariñ lu muy def lu ne war naa doon luy amal njariñ mbooloo mépp waaye du xool rek ab kuréel walla ay farandoom ay farandoom ay farandoom rek mu leen di bàyyi xel wala di bàyyi xel rek kuréel boo xam ne daal ab kuréel la ci biir mbooloo mi waaye kon lu muy def na ca xool njariñul mbooloo mépp yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku jiite ku jiite te sàmmut seen njariñ kooka sawar la jëm sawar ku jiite ay nit ba nopi nax len nax len moy duggal len ci lo xam du sen njariñ ku ko def sawar la jëm ayuma ra'in istara'a ra'iyatan fa ghashaha fa huwa fi wala ustura'a ayyuma ra'in istura'iya ra'iyatan fa ghashaha fa huwa naar ku ñu dénk mbooloo mu nax leen sawara la jëm nax leen mooy dugal leen ci loo xam du seen njariñ bu ko defee rek sawara mooy ak payam bokk na ci li war ki jiite itam kiñ tànn ba noppi mooy nag muy diisoo muy diisoo ak ñamu jiite muy diisoo ñoom bañ di demee xalaatu boppam rek waaye muy diisoog ñoom diisoo googu bokk na ci li yàlla rafetlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lim rafetlu ci moom bokk na ci lim ko digal lim ko digal daa am lu mu rafetlu ci moom ba noppi nag digal ko lim rafetlu ci moom mooy nooy gim nooy nooy gim nooy ci ñi mu jiite nooy gi mu nooy ci ñoom yàlla da ko rafetlu ba noppi nag ne ko nag deel diisoog ñoom te di leen jéggal te di leen jéggalul itam di leen jéggalul di di ñaan yàlla mu jéggal leen yow sa diggante ñoom nga leen di jéggal tey yàlla mu jéggal leen te ngay diisoog ñoom te ngi diisoog ñoom dañuy faral di wax ne diisoo bu kenn bu mënoon a wax ne am na ku ko dul soxla xëy na yonent yonent bi lay doon ndax ku yàlla waxal kooku bu doon nee am na ko du soxla diisoo moom la war doon te moom lañ ko digal kon ñëpp ko soxla bi yàlla di wax ci jullit ñi dafa wax ne seen mbir dañ koy diisoo seenu mbir dañ koy diisoo kon mooy diisoo mooy doxiinu jullit ku jiite ku ne daa war di diisoo ak ñamu jiite waaye du wéyee du wéyee xalaatu boppam rek kon njiit day war di diisoo kiñ tànn ba noppi ne ko dénk nañ la it lu caagoon day def rek lu ko neex day wéy ci xalaatu boppam waaye day diisoo ak ñi ko dénk ñeenteel li ko war ci liñ ciy tudd mooy mu doon ku nooy nooy lawet bañ a tar bañ a doon ku tar waaye mu doon ku nooy doon ku lewet loolu tam dafa jaadu ci ku jiite yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaan daa am kum ñaanal yàlla am kum ñaan yàlla dafa ñaanal yàlla ki jiite mbooloo ba noppi nooy ci ñoom yërëm leen ñeewante leen da ko ñaanal yàlla ne yàlla noone nanga na mel noone ci moom yow itam ki jiite mbooloo ba noppi yërëm leen ñeewante leen yàlla na ko yërëm yow yàlla yàlla na nga ñeewante yàlla na ko ñeewante yow yàlla safaan ba it mooy ki jiite mbooloo ba nag leen yërëmu leen waaye da leen di teg lu dafa tar kooku itam mu ñaan na yàlla na mel noonu ci moom moom itam yàlla na nga ci moom mu ne ku jiite ku jiite ñenn ci sama xeet wii ba noppi tar ci ñoom maa ngi lay ñaan yàlla yow yàlla nga tar ci moom waaye ku jiite ñenn ci sama xeet wi te yërëm leen ñeewant leen yàlla na nga ko yërëm yàlla na nga ko ñeewant kon loolu lu jaadu la ci ku jiite mooy ñamu jiite mu yërëm leen ñeewante leen mooy lu nekk rek muy xool na mu gën a woyofe ci ñoom kem kàttan kem kàttan léegi nag ñu bëgg a mujj rek ay mbir yooyu ay gisiin ay taxawaay yoo xam ne nit ñi am nañ ko taxawaay ci mbirum politique te ñu jàpp ne jar na xoolaat ñu jàpp ne jar na seetaat bokk na ci li nga xamee ne ñu bari ci nit ñi dañoo seexlu dañoo seexlu politik dañ ko seexlu am na ñu bari dañ koo seexlu dañoo jàpp ne ñoom waruñ cee dugg ndax du lu du lu du lu sell du lu rafet du lu baax lu bari ci nit ñi foofu lañu nekk loolu it dafa am lu ñu waroon a ràññale te dañ ko ràññalewut ndax dañoo war a ràññale jëmmi politique ci boppam ak nag aw doxin ci politique aw doxin wu ñenn di doxe ci politique dëgg la am na doxin wu fi fés

wala tax nga seexlu jëmmi politique ci bopam ndax bokkuñ ta bu féké amna ñuy dox doxeen wuñu seexlu ba tax nit ñi seexlu walé politique kon kañ la fi doxeen woowu di jog mooy bu ñeneen ñewut jéem doxé doxin wenen wu rafet wu baax kon kañ la fi doxeen woowu di jog bu dañu xas dox doxé doxin wuñu seexlu rek ñom lañ ko far bayé kon loola fi sax loola fi sax motax kon waruñoo seexlu jëmmi politique aw dox yi nag mën nañ koo seexlu kon ki politique jubu mën na cee sóobu moom te bañ a dox doxin yi woowee ñuy seexlu waaye du seexlu jéemi politique ci boppam ndax ñaar yooyu bokkuñ leneen li it mooy doxin woowu ñuy seexlu dafa yaatu dafa yaatu mooy doxin wu rafetul doxin wu rafetul dafa yaatu waaye ni ma ko waxee yaatu gi du tax ñu jàpp ne jëmmi politique ci boppam moo baaxul ibnu rushd ibnu rushd ci borom xam-xami jullit ñi la bokk xam-xam bu yaatu ci wàllu yi wuute ci fànn yi wuute la amoon xam-xam ba fekkee ña ko jiitu woon doon sikkal li ñuy tuddee falsafa mooy philosophie philosophie mooy di jëfandikoo xel daal di xalaat am ñu ko doon sikkal ndax wane ne dafa am ñu ko def réer réere ci doxe ci réer réer ba ba weddi yàlla sax wala ba weddi diine ñu ne kon baaxul moom dane ku wax lool day day mel ne ku ku gis ku naan ndox corox ca corox naan ndox corox ca mu ne kon bu kenn naan ndox gis na ku naan ndox corox ca tax mu ne kon ndox kenn waru koo naan ndax dañ ci corox ak ci corox moo ci corox rek waaye nit mën naa naan ndox te du corox kon mooy kii dugg ci politique dox ci doxin wu bon moom moo ca dox doxinu bon rek waaye nit mën naa dugg ci politique te du ca dox doxinu bon kon ki ne buñ politique day mel ne ki ne buñ naan ndox ndax kuy naan ndox mën naa corox waaye moom mën naa naan te du corox kon doxinu politique bu bon bu fi nekkee itam nit mën naa dugg ci politique moom te dox ca doxin wu rafet te nag buñ ko jàppee noonu moom du fi jóg lu bon la fi des moo fi sax ndax buñ ko bàyyee ñi ñuy sikkal kon sikk soosu moo fi des waaye ñeneen ñu jàpp ne ñoom mën nañ caa doxe doxin wu sikkut ñoo ci war a dugg buñ ci yàggee mën naa dem ba doxin wii fesoon mën naa dem ba weneen doxin muur ko mën naa dem ba weneen doxin muur ko li may mujjee nag te momit danaka mo jur sax li ñi wax lepp ci doxin ñu jaaduwul li moy li nit ñi di wax naan politique fi la yam mbirum adina la fi la yam mbirum adina amut ñu ko waxe ci tambali mbirum amut mbir mu yam fi mel ni mbir du yam fi kuy japp ne fi la yam mom moy ku gemut alakhirah ak la ci yalla wax way ab julit mom du japp ne lenn da yam fi lenn lu yam adina amut lépp loo xam ne bu ko nit defee mën nañ ne baax na walla ñu ne baaxul rek du yem fii ndax yàlla wax loolu yàlla ne ëllëg ku def ci àddina lu mu tut tut ci lu baax bu ëllëgee dana ko gis ku def ci àddina lu mu tut ci lu bon bu ëllëgee dana ko gis kon lépp lu ñu mën a wax ne baax na rek dana àgg ëllëg mu gis ko lépp lu ñu mën a wax ne bon na dana àgg ëllëg mu gis ko kon amul lenn lu yem fii nit ñee ko def ci seen xel yi ngir bëggul leen neex ñu doxe ko waaye amul lenn lu yem fii ku dugg ci politique ci duggin wu baax defin wu baax wi ñu wax lu yem fii njariñ lu mën a juddoo fii itam bu ëllëgee dana ci am tuyaaba ju rëy ku dugg ci politique doxe ci neneen doxe nu ñaaw yi nit ñi di seexlu yàq gu yàq fii itam bu ëllëgee dina ci am bàkkaar ak i daan amul lan lu yem fii loolu ñoom lu mag la loo xam ne moo jur nit ñi di ci doxe nu leen neex day mel ne yàlla daal moom politique bokkut ci mbiram moom da ko bàyyee nit ñi ñooy seet nuñ ci mën doxee seen mbirum bopp la bokkut ci li muy li muy li muy xool bokkut ci li muy jàpp bokkut ci li muy àtte demut noonu yàlla lépp lay jàpp lépp lay xool lépp lay àtte politique lu dul politique ñoo ci yem sëñ Muntaxa e, foog naa ne xëy na mënees naa tënke e, li nu wax ni ubbee ko waxtaan wi bu lu ngeen ci dolli wala bokk ci des dolli ko ci mu mën koo mottali maa ngi jégalu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Cheikh defe naa ne mbooloo mi niñ ko waxee woon ci njalbeen gi. gannaaw bu ñu digloo waxtaan wi ba mu jeex ñu fi teewoon te teewlu ñu fi teewoon te teewlu xam nañ ci waxtaan wi lu ñu xamutoon defe naa am nañ beneen gis-gisit war nañ koo am ci liñ doon waxtaane ndax ni ma koy faral di waxee waxtaanu Serigne Cheikh teew taxu koo dégg da teew teewlu dangay teew teewlu te loolu moom solo di dégg rek amul solo mais amuk dégg moo am solo ci waxtaan te topp ko te bëgg naa it doon naa ñaan ku ne ci mbooloo mi nga fexe ba waxtaan wi nga am ko ci feneen dem sa kër digluwaat ko bu baax teewlu ko ba xam loo ci mën a jëlee parce que du waxtaanu waaraate waxtaan wu ñuy jëlee ay njariñ la yoo xam ne yu pratique la da ngay dem def ko boo fi jógee yow bu fekkee daa nga politique war ngaa xam nooy politique yow mi koy def acteur bi léegi xam na moom lu ko war yow mi nga xam ne yow doo acteur waaye wate rek moo la ci war xam nga li la war yow mi nga xam ne dañ laa wateel ba noppi xam nga li la war te ñett ñooñu rek moo fi nekk benn yow nga nekk ab candidat bëgg ñu la wala yow ngay fale wala yow ñu fal la ba noppi ñett ñooñu rek ñoo fi nekk te kenn ku ci nekk wax na la doxinam nan la war a doxee ak lan mooy atteem kenn ku dem mën ngaa jëriñu ci loolu kon bi mu tàmbulee rek. liñ tàmbulee woon rek loolu la tàmbulee moom it won ñu lan mooy diine ak lan mooy politique diine ni ñu ko wonee mooy lu yaatu la yemut ci julli yi rek yemut ci woor yi rek lu am solo la parce que nit ñi bu ñu jàppee ne julli ak woor aj makka mooy mooy jaamu yàlla te yàlla nee na dama leen a bind ngir ngeen jaamu ma amul leneen lu tax ma bind leen ci àdduna dara andiwuma leen ci àdduna lu tax ngeen jaamu ma képp moo tax ma andi leen ci àdduna kon soo dee la julli juróomi minute la. nga ne koor la wenn weer la aj makka benn yoon la ci at mi wala benn yoon la ci dund gi kon li des ci sa dund gi lu muy doon li des ci sa dund gi nu muy tudd te yàlla daf na lépp na tudd jaamu yàlla yow nga def yooyu rek na loolu mooy jaamu yàlla daal ci génn kon loolu ñàkk dégg maanaam jaamu yàlla la ni mu ko waxee ne jaamu yàlla mooy lépp def lépp looy def nga def ko ni ko yàlla bëgge am na benn borom xam-xam bu ko gën a taarif ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu من الأقوال والأعمال جام يالله تور لو خامن موي لب لو خامن نيه نا يالله تي وخي اك تي جيف لب لو يالله بغ تي وخ اك تي جيف رك لول جام يالله لي تود كون گنا ياتو لول گنا ياتو لول بوليتيكيت واخ نانيو كو موميت واخ جي لوم بري بري ووتاي موي رك سايتو مبيرم نيت ني بن دوندو تي جام saytu mbirum nit ñi bañ dund ci seen jàmm àdduna dund ci seen jàmmi alaxira politique gu islam mooy saytu mbirum nit ñi ñu dund ci àdduna ni ñu fi war a dunde bu alaxira it lañ yaakaar ñu mën koo am loolu am na bon borom xam-xam boo xam ne wax na ci lu am solo maanaa dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk saytu mbirum nun ñooñu mënta ñàkk Seyd na Ali moom daf cee boole lu rëy rëy sax nee na. la budda linnaasi min imaara nit ñi mënuñoo ñàkk am jiit nit ñi fuñ daje mënuñoo ñàkk am njiit moo xam njiit la ku baax la wala kàccor la donte nag kàccor la amuñu ku baax ab kàccor jiite ñu moo gën ñu bañ a am njiit ci lislaam ab kàccor jiite nit ñi moo gën nit ñi bañ am njiit amul benn situation boo xam ne lislaam day may nit ñi ne leen dem leen amu leen kilifa moo xam ci diine la moo xam ci àdduna la benn situation bu nit ki toll ba ci julli gii bu ñu demoon ba nga xam ne ki ki yées moo fi nekk te bu jiitewut duñ julli mbooloo na jiite te julli mbooloo moo gën ñun ñu julli kenn ku ne julli sa julli bopp ñu taxaw ci gannaawam julli moo gën ñu ne rek kii ab kàccor la dañ ko fi baax bañ a julli sallu waraa kulli barrin wa fajir am na ñu ne addis la nit ñi julli nekk am kilifteef ci diine am kilifteef ci àdduna day lu war amuñu sañ-sañ bañ koo am ak nu mën a mel amuñu sañ-sañ bañ koo am kon day mel kon kilifteef googu day lu war te kilifteef googu lii tax nga mën koo am mooy dañ koy tànn wotee tax nga am ko kon la la usul yu ni waxoon ne maa laa yatimmul waajibu illaa bi fa huwa waajib yow munoo ñàkk kilifa am kilifa dafa war ci yow te munoo am kilifa te tànnoo ko kon tànn lu muy doon ci yow kon tànn day nekk lu war ci yow tànn day nekk lu war ci yow parce que boo ko amul rek da ngay di dugg ci buntu euh, bàkkaar muy ñàkk am kilifa kon tànn gi day nekk lu war ci yow ndax li lii tax nga mën a am kilifa mooy tànn kon tànn day nekk lu war ci yow kon dafay mel ni sëñ Cheikh li wax man li ma ci gën a takk rek mooy warugar yi warugaru ki ñuy wateel muy candidat bi ak warugaru kiy wate ñoom ñaar ñooñu te ñaar ñooñu ñoo ci gën a am solo ak ki ñu wateel ba noppi ak ki wateel ba ba noppi candidat bi nee na ki ñuy wateel moom li ko war mooy na ko wóor na moom li li muy ñaan di ko sàkku ci nit ñi ñu fal ko ko xam na ko xam na ko am na xam-xam ci lii du caageen du ñu ne am na xam-xam mooy xam na lépp waaye lii mu bëgg a jiite nit ñi moom xam na ko soo bëggee yor alal war ngaa xam ci finance dara soo bëggee yor tribunal war ngaa xam ci loi dara soo bëggee yor leneen ak leneen lu ne am xam-xam bu bu koy saytu boo xam ne boo ko bëggee def war ngaa xam xam-xam booba kon kii sàkku ñu fal ko war na ko wóor ne moom lii muy sàkku xam na ko waaye xam gi ndax doy na déedéet te loolu moo ñu dal ñi ñuy fal li ëpp ci ñoom dañ leen di fale xam nañ waaye du ñu leen fale ndax nag wér nañ wér nañ indi xafizun alim yusufa loolu la wax xam naa wér naa xam naa wér naa li ëpp ci suñ problème nag mooy dañuy fal ñu xam te duñ fal ñu wér loolu mooy suñu jafe-jafe te ñaar ya war a ànd ndax ku xam te wérut du def dara ku xam te wérul du def dara ku wér te xamut it du mën dara nit mën naa wér te du xam waaw nit naa ragal yàlla lool waaw di julli lool di woor lool ragal yàlla lool mais mënut a yorum réew mënut a jiite ay nit Abu Zar mii eh, sëñ Cheikh tudd léegi ab saxaaba la saxaaba mooy daraja bi gën a rëy ci daraja yi jullit yi gannaaw yonent saxaaba ci toog teg topp Abu Zar saxaaba la. ñëw di laaj ñu ñu fal ko yonent bi ne ko duñ la fal ndax mënoo ko ndax dangaa ngaa da ngaa faible innaka la daif da ngaa faible te ñu lay jox amaana la responsabilité la bu mag critères yi war a am ci responsabilité boobu mënoo ko yow donte na saxaaba nga kon ndekem baax rek du tax a jiite baax rek du tax a jiite dem yeneen critère mooy la lay la la ngay jiite nit ñi da nga koy man da ngay jité nit ñi da koy man da ngay baax ba nopi man ko kon baax du tax jitu man rek du tax jitu ñaar yépp day at inni alim kon la ci ñëk moy xam-xam ak wër ba ci tagu moy quwwatul jism moy mu am katan la na loolu sax legi amatul amatul ndax bala nga doon candidat dañ lay laaj ay document yo xamne da nga ca woné ne yow mi ku wër nga amulo ben faiblesse wér nga loolu dañ la koy laaj moom bala nga déposé kon loolu ñay laaj loola wuutu nañ ci mbooloo mi ca loola ku dib candidat rek kon xam nañ ne ku wér la ndax ba muy laata déposé déposé na lu ñu xamee ne kii aw yaramam wér na kon ñooñu wutu nañ ci lool beneen ba ci des mooy quwatu quwatu shaxsiya boobu wax naa ko mooy adamul xirsi al talab maanaam naa falu wala ma dee bépp candidat boo xam ne daf ne naa falu wala ma dee wala naa falu wala na réew mi tàkk kenn waru ko fal naa falu wala réew mi tàkk kooku boobu candidat mooy koo xam ne li muy laaj uruñ ko ko jox ndax xër ni ci ba ëpp bu fekkee intérêt nit ñee ko taxaw a jóg du ne bu ma faluwut dëkk bi tàkk parce que dëkk bi la bëgg laaj ba defar ko daa bëgg laaj dëkk bi defar ko mu ne bu ma faluwut dëkk bi tàkk kooku kenn waru ko fal kon jikko yooyu nga xam ne mooy xam bi wér gi wér gi ci ci jikko ci ay jikko waaye wér gi ci aw yaram waaye wér gi ci ay ci ci ci caractère xuwatu shaxsiya caractère am caractère ba nga xam ne su dogu jotee nga dogu da ngay dëgër ba mel ni weñ wala nga nooy ba mel ni ndox fu nooy jotee nga nooy fu dëgër jotee nga dëgër loolu kilifteef da laaj fu nooy jotee nga nooy fu dëgër jotee nga dëgër am na kilifa yoo xam ne dañuy dëgër rek way duñ nooy mukk am ñoo xam ne dañuy nooy ba lépp yàqu da boole ñaari benn bu ci nekk nga teg ko barabam boo ci àggee teg ko barabam lan mooy ay warugaram nag moom mi nga xam ne moom la ñuy wateel bu ñu xamee ne loolu jikko yooyu la war a am xam-xam beeg wér geeg yaram wu wér weeg am caractère beeg bañ a xër ci li muy wut ak yépp su melee noonu ba noppi nag lan mooy ay waru garam mooy bu dikkee na wax nit ñi li mu bëgg a def bu campagne électorale jotee na dikk ne nit ñi man dey damaa bëgg a yor réew mi te nii laa ko bëgg a yoree nii laa ko bëgg a yoree nii laa ko bëgg yoree ci lu leer naa ñëpp wax ñëpp wax boobu loolu waru garam la moom mën na ko def beneen ba ci des mooy bu bu bu waxee loolu nag ba ba keneen wax ko keneen wax ko keneen wax ko bañ tànn kenn ci ñi waxoon loolu mbooloo bi daje nañ majorité jox na kenn ne moo moo leen gënal ñi ëpp ci nit ñi ne leen diwa leen gënal ñëpp nañ ànd ca kookee fii ak ma nga fay nekk kooke nit ñi tànn ba ne moo leen gënal bu ca jógee ne man ki ma ki ki ma ki ma gënaloon tànnuñu ko kon man ànduma ci boobu boo ko defee yaa ngi def li ñuy wax da nga xar yatu topp yatu topp nga xar parce que nit ñi majorité bi nee nañ kii la àndal nga dem ba ci biir nga ne man ki ma faloon ki ma bëggoon a fal faluwut kon man ànduma ci kiñ fal loolu l'islam da koy tere kon dangay ngay joxe sa programme waaye bu ñu tànnee ba noppi kañ tànn nag nga ànd ci yow ne ànd naa ci tànn gi ñu ko tànn loolu mu ngay dégg léeg-léeg ñaari candidat yi ca mujj suñ demee ba ca mujj ga keneen ka bu ñu ko gañee moom mooy njëkk a ne léegi nangu na ne gañe naa gañe nañu nangu naa ne gañe nañ ma loolu rek lay moy ñim andalon àndaloon waxal na len ne mom gagné, nañ ko waye nangu na ne gagné. nañ ko loolu principe l'islam. la principe l'islam parce que moy tax jamm am benen bi ci suis moy ki nga ne da day woté mom ci bopam mom suis ki woté lan moy waru garam mom moy mu xam ne def ay atté l'islam la bu kenn ne aduna la rek li yefi aduna la sama yon newu ci yefi aduna la lim wax lu am solo la يفي أدنى رك أمول في الإسلام لأن لو خمن جفل اللي يخرج أدنى لا يم أمول في الإسلام لا دف بباخة على خير الله بمنع على خير الله كون أمود لو أمود أتى في الإسلام ياو ليلا ور ياو ياو كي يوتل ما ينجا جابوني لينجا دف سير الله بس كسير الله من ديكنا ندم أبغى يريمي من نالي من نالي من نالي كي ديكنا من نالي من نالي من نالي نجلس أو كارت سيرنا كي دي سيرنا نلم وح ما لولو dangaa seere ne diw mii de li mu wax seere naa ne mën na ko te ñeneen ñi ci it jàpp naa ne moo leen ko gën le ñaar yooyu yëpp la da jàpp ne man na ko da jàpp ne moo gën ñi ci des kon responsabilité bu rëy carte wu ndaw woowu nga yor bu rëy ñaar yooyu ngu ci mooy seere la da ngaa seere ne ji li wax mën na ko waaye da ngaa ne moo ko gën a man ñeneen ñi ci des ñëpp te gis nga la wax ca seere ku ko nëbbu nga nga jàpp ne waajee fi man waaye kat man kat du sama waay ma wateel keneen wa man yaktubuha fa innahu آثم قلبه غيسنا كوكو نيب موم ليم خام واخوكو ولا مو واخ لو ووتيك موم دا فا دا فا ووتيك سيري زهادت الزور لا ديف موي دا سيري اي نين تا لولو غراو لا كينن كينا موم مان كات غيناو لولو امنا سي نا توك باña واتي مان رك جاب سما نياب ني لا لول تام سانيوكو ndax yonenti bi neena man lam yahtam bi umuri almuslimina falaysa minhum li mbirum nit ñi la ñepp ko bok kenn ku ne sa dundu su loo itteelut nga dem jàpp sa ñaamur bu ëllëgee lu xew responsabilité am nga ko ci bu ëllëgee yow mi jàppoon sa ñaamur toog bu ëllëgee lu xew bu dee lu bon am nga ci responsabilité parce que yaa seetaan ba loolu am sa seetaan moom nga seetaan yaa seetaan ba loolu am beneen bi ci des mooy nga jàppee ko ne ab jaayante la parce que jaayante du dara lu may ki fi yàlla teg jiital ko ànd naa ci nekk gi mu fi nekk ànd naa ci nekk gi fi nekk te te yonent bi nee na woon ñàkka jaayante. ku ko def dellu nga ci cosaan dellu nga ci ceddo maanaam doo jullit daal la bëgg a wax ñàkk jaayante ku ko def mooy da day mel ni yow doo doo ab jullit kon loolu du lu tuuti benn boobu rek doyoon na muy ne seere la kon kuy fob aw carte di ko dugal ci ab urne na nga xam ne li ngay def dangay seere ne lii ngay wax am na kii may waxal kii may dugalal kart bii kat li ma xalaat ci moom lu wér la ci man xam naa ne mën na ko xam naa ne moo ko gën la ñu ci des kon da seere lolou wër wër la benen ba ci dess moy yow mi nga xamne nak yow lañu wotel ba nopi yow lañu wotel ba nopi wala wala yow yaay woté moy li la war moy bokku na ci li la war moy nga deggu ci li ngay woté moy li nga séré muy deug ci yow carte bi nga duggal ki nga ko duggalal na deggu ci yow ne li tax nga duggalal koku deug la deug la ci yow li tax nga duggal koku deug la ci yow benen ba ci moy nga bañ ca farfarlo man kat japp na ne samba mi mo gën demba waye nak man demba moy sama mbokk wala demba la bokal parti wala demba kat momay amal njariñ fi njariñ lo xamne sama njariñal bop la donte na xamna ne samba ko gën ci mi man momo gënal ndax man momay jariñ man man kep wala ño bokk parti wala ño bokk askan wala ño bokk nangam wala ño bokk nangam ak lu mën a doon rek lo xamne ne na intérêt mbolo bi loo ko jàppee lu dul intérêt mbooloo mi rek yaa ngi wàcc yoon kon taasu boobu war nga koo wattandiku beneen ba ci des mooy mooy li ma waxoon léegi li ëpp ci nit ñi loolu la ñuy def boo gisee bu wate ñëwee ñu ne juróom-benn million bindu nañ waaye ñaari million ñooy watu wate la ca ëpp mooy ña ca des dañoo selang lu maa sama yoon néew ci man daal ñii sama yoon néew ci parce que ñëpp a ñëpp a ñëpp a yem suñ ne ñëpp a li mu wax léegi lu xoromu la mais lu am solo la ñëpp a bon waaye am na ku bon am na ku bon a bon am na ku bon a bon a bon muy ñetti daraja ñëpp a waaye ñetti daraja ngi fi kii benn la ci am kii ñaar la ci am kii ñett la ci am yow li leen la saam digal mooy tànnal bi gën a woyof ndax boo tànnul bi gën a ñeneen ñi dem tànn ba gën a fort yow da boo tànnul ki bon a am na ñu ne ci sa gannaaw ñoo xam ne dañuy dem tànn ki bon a bon a bon bu ko defee àdduna daal tukki responsabilité nga cay am boobaa yow mit fexe bañ tànn kooku ndax sa gàttañ look sa toog jàpp sa njaamur da am responsabilité ci loolu yow itam kon yaakaar naa yooyu ay mbir la yoo xam ne daal xëy na waxtaan wi leer na gën koo leeral day mel ni day gën a indiwaat ab ab ab jaxase waaye daal jàpp naa ne kenn ku fi jógee war ngaa fab waxtaan wii daal am cassette bi wala nga am ko ci rajo wala fenn digluwaat ko ba xam lu ciy sawal yow parce que waxtaan looloo ci am solo. soo koy diglu bul ko diglu na waxtaan wi neex na rek waaye lu ci sama wàll man ci waxtaan man candidat wala ma kuy wate wala ma pouvoir ak opposition ñoom ñaar ñëpp a ngi ci pouvoir bi ñi ko ba noppi ñu woon ak ci opposition bi kenn ku nekk wax na ci yow luy sa ci ne wax na luy sa ci kon a ngi noonu woo ne eh, nañ ko te bañ koo jëlee xol yi te bañ a jàpp ne politique daal mbirum àdduna la loolu mu wax lu am solo la moom it politique mbirum mbirum àdduna la li mu wax mbirum àdduna amul fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara àdduna ñaar yooyu rek fi nekk li ñuy jëf lépp lu baax ak lu bon jëf yi ci àdduna yépp imma muy lu baax wala muy lu bon yàlla nee na loo def ci lu baax maa ngi lay xaar ëllëg loo def ci lu bon maa ngi lay xaar ëllëg politique ci loolu la bokk ci loolu ngay def ci la bokk kon ñi ngi sant Serigne Cheikhouna bu baax a baax li ma leen waxoon ne euh, tomb bi tombam la ndax nit buy wax lu mu xam da ngay xam ne kii lu mu xam la lu mu gëm la mu ngi ciy wax mi ngi ciy yëngu mi ngi ciy bind jamono yi bu yàgg a yàgg yàgg lool ba léegi si ñi ko taamu ci loolu kon xamoon nañ ne loolu mooy mbiram kon ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla mu dolli ko xam-xam dolli ko kàttan ba li muy yëngu ci diine ji mu gën koo man incha allah kon euh, wax nañu rek suba. tomb bi nga xamne mom lañuy waxtane moy an namasiju ta'limi fi Sénégal bayna al waaqi wal ma'mul manan system éducatif njàng mi ci Sénégal njàng mi fi ne njàng yi fi ne ñu set ko ba xam deppona nim mel ni deppona ak ni ko bëgge won wala déet njàng yépp la wax nak njàng yi ci Sénégal nim mel ni nga xamne moy waxe bi ndax deppona ak nañ ko bëgge wala na wara mel. loolu lañu waxtaanee suba Serigne Moustapha Diop Ndar insha allah tabaraka taala moo koy waxtaanee. ñi ngi tam sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy jël mbir yi di ko tasaare te muy lu am solo li Serigne Cheikh naa doon wax danaa ko ci wax ñi yéen li ngeen di def fardu kifaaya la fardu kifaaya la mooy loo xam ne bu amul ñëppay am bàkkaar yéen ngeen jël ko féeti ci nit ñi parce que bari na ay junni junni yuy diglu waxtaan wi di ci jariñu te bu ngeen ko toxalutoon duñ ci jariñu kon ñooñu ci jariñu lañ ci am ci biol ak ki ko wax lim ci am ci biol yéen ñi ko toxal da ngeen di am yool bu toll noonu te kenn du ñàkk bokk na ci euh, mosquée mosquée Touba comme point com mooy def naa bu bu jumaa ji alxadimiya TV Lamp Fall TV euh, jant bi euh, FM ñoom sax dañ koy def direct def naa ne Touba Mandab Touba Monde bi ak yeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm ci liggéey bi muy liggéey bu am solo boo xam ne kuy ku ne ci beneen jataay rek di leen diglu dana xam ne lii lu am njariñ la parce que liy jariñu ci jataay bi te teewuñu moo ëpp fuuf li ciy jariñu te teew kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحب